jëf tey nag euh, dinañu waxtaanee li gën a fës ci week-end bi bokk na ci arrestation yi nga xamante ne nii nemmeeku nañ ko euh, yi ci gën a fës nag bokk na ci euh, Cheikh Oumar Diagne ak ki nga xamante ne nii moo di Abdou Karim Gueye xurum xàq ñoom nag seen ndaje mañ doon amal di sàkko a ce que jeunesse bi génn euh, manifester wu pacifiquement ak euh, euh, di exiger président de la République du Sénégal muy son excellence Macky Sall à ce que mu démissionne parce que gis nañ doxalin bi nga xamante ne ni mi ngi koy doxal ci biir réew mi moom nag lañ doon naqarlu boo looloo waraloon tax ñu woo jeunesse bi à ce que ñu génn manifester wu mais nag ñu leen wooloo foofu daanaka dañ leen dem jëli sax ki nga xamante ni moo di Cheikh Omar Diagne dañ ko fekk këram jëli ko yóbbu ko ndaxte nee nañ dañ da doon woote li nga xamante ne ni moo di insurection moom nag euh, wax na li ma euh, ubbee rekk ne que ni moom euh, li mu wax loolu la bokkut ak insurrection bi muy wootee quant à Abdou Karim Gueye nag moom nag dafa daal di décider woon bu mu taxawee ci kanamu enquêteurs yi patt bi la may nanguwul tontu benn question boo xam ne ni laajoon nañ ko ko ñu nemmeeku yeneen ni arrestation nag comme li Omar wax tout muy magu waa Pastef am na sax kuñ fi jotoon dalal yi ci lu ay di jàmbat defe naa ni waa ji la moom la jàpp jàppale kii nga xamante ni moo nekk impôt et domaine muy Bodian la tur bi lay fàtte moom tamit bokk na ci ak yeneen i ndaw sax yi nga xamante ne ni jotoon nañu génn si jour 16 mars bi ñoom ñëpp ñu arrêté leen waaye ajaratu li ma si gën a jaaxal nag mooy que ni tey bu ñu demee doxantu dem nañ Mermoz dem cité kër góor gi dem nañu aussi ba ba ba université lañ mujjee dem mais diggante Mermoz cité kër góor gi ba ba ba université bu seex Anta Diop. gis nañ ni ndaw bu ñu wala euh, mag bu ñu arrêté euh, di la bëgg a question ci euh, li nga xamante ne nii gis nañ ko actuellement si réew mi koo si wax ne ko deux poids deux mesures yi ñu nemmeeku ci biir dëkk bi parce que boo seetloo opposition bi lépp lu ñu wax jëmale ko si nguur gi wala ñuy artu si doxalinu nguur gi ñu jàpp leen tëj leen ñi nga xamante ne nii nag ñoo féete au côté du pouvoir ñoom itam seetlu nañu lu ñu mën ci wax rek euh, luy ñaawteef jëmale ko ci opposition bi dara du leen ci fekk mais koo ci tàllal micro rek lan la lay wax euh, dama ragal parce que jamono ji moo toll foo xamante ne nii boo waxee sax attan nañ la fekk ba sa biir jàpp la mu nekk difficilement la ñu la ñuy jotee parce que dama dem ba finalement sax dañu woo Abdou Top may remercier Laye Diallo ak euh, ki xam ni moo di pap ci gunge bi biñ ma gunge woon dafa mujjee wax nañu jéem a jël ay PC en plus ñu enregistré waale li nit yi di wax nañu dem xool ko léegi léegi daal di dëttusiwaat. Ah. reportage bi laa daa ko mën. dafa. dama ko mënul quoi. problème bi ma am mooy damaa ragal caméra. dangaa ragal caméra wala danga ñemewul wax. caméra bi laa ñeme. sinon bu doon dem sans caméra la moom coono jiw. waaw ah, war fa dem sama tere la mais nag affaire presse yi moom mooy loolu quoi xoolal gars yi ci kanam ba dina tiis si man de ah? loolu dina tiis si man de ah. loolu làmb ñeneen ñi man moom moo écran moom ñemewul non damaa ñemewul écran écran laa jëmewul. waaw mais du dëgg du yoon mooy comme ni ñuy wax rek Macky Sall moom loolu tàmm na ko moom chaque fois moom noonu la moom day jàpp rek moom ba mu fi toogee ba léegi ku mu gis ne kii da koy xaw dérangé na ko wala àndul ak moom ci li mu ni mu gisee wala nangam nangam rek mu jël dugal ci côté gi ñooñu moom maîtrise min nañ loolu quoi ñoom ñoom garaawul quoi ay Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne ñooñu moom wax dëgg yàlla xam nañ ne ay xeexkat lañ ay guerrier lañu chaque fois ci xeexal ni ñuy xeexal réew mi ci la ñu nekk <laughs> pour ngeen am ko wax ci vox pop voilà am na koo xamante ni nii moom ba ma ko tàllalee micro mu ni comme que démocratie bi dafa dellu ginnaaw te à tout moment lu nekk mën na xew gis nañ état bi ni muy ni muy doxalee ñu ñu ñaawlu ko bu baax a baax looloo waral Omar Sénégalais yi léegi ragal nañu sax ñu dëkk leen micro ñu ñu ax ci li nga xamante ne nii moo xew ci Sénégal. Hmm. xam ne euh, fi ñu toll. pour man ki ci war a njëkk am kersa muy njiitu réew Macky Sall. Hmm. maanaam bu ne senegal tool na ci foo xam ne boo dékkee micro nit mu ragal a wax. Mm. tey jii ñun ñii rek toog fii di wax sànq damay dajeeg nit rek mu ne est-ce que am ngeen garde corps maanaam ñu dem ba sénégalais yi jàpp loolu. Mm. loolu dafa war a doon kerse ci Macky mu xool ba muy jël réew mi ak fi réew mi toll tey maanaam mu rus mu ne ah man de réew mi fekke wu ma ko nii lan moo yóbbu sénégalais yi fii. pour man li ci jiitu mooy ñi bokk ci nguur gi war nañ poser question boobu ministre de l' intérieur Macky de la justice alors que joxuñu leen woon Sénégal bu mel nii. Mm-hmm. bu ñu demee dix ans après Sénégal mel nii ñoom war nañ ci am kersa pour etre honnête bu nee ba ku mel ne Pape Ndiaye ab taskatu xabaar Macky Sall bi muy jël réew mi mun a man du ma tëj ab taskatu xabaar Pape Ndiaye tey ji nekk ci kaso bi ginnaaw Pape Alé ak ñeneen dem ba tey ji képp koo xam da ngay génn sa sax sa waa kër da lay art naa la yamal fii yamal fee. li ñi toog nag na waxuñu comme ñii man ànd naa ak ñoom parce que nag bu ñu demee ba toll ci rëbb di rëbb parce que comme sànq bi may nuyoo li ma wax ci Kër Massar un boo xam ne magi Pastef koo xam ne bu dee wax sax wax ji da koy forcer nga jël ko yóbbu gendarmerie lan la fay def. ak mm. lan nga koy doyee. loolu nag bu ñu demee ba egg ci niveau boobu man dañuy wax ay ñoom Cheikh Oumar Diagne mooy ñooñ mooy ñi ñu xam mais ñaata jeunes ay deux cent jeunes ñun suñu commissariat yi nu mu xatee suñu prison yi mu xatee. du commissariat parcelle maa ngi dégg gis fa nekkoon am na ci ñoo xam ne dégg naa mi ngi bind si benn kii di wax ne dañu leen nanguwuñu leen sax jox lekk amuñu ko aussi deux cent jeune boo leen téye ci ab commissariat ak ni commissariat xate doo leen fan nga leen ñuy dundalee mm-hmm. boo leen yóbbee ci kase fan la ñuy dundalee mm-hmm. léegi nag ku mel ne tey ci Omar Diagne ku ci mel ne ñoom Karim Gueye li dal dàmboo démb dama ci xalaat bi ne woon na leen dama ne est-ce que nekkul kaso mu ëpp sécurité léegi ci biti mm-hmm. comme tey ji yow mën nga nekk benn dàmboo génn ci biti ay nit dab la dóor la ay fetal comme ni ko defoon Pape Matar wala ñu def ko benn maam biram waj te du mujj fenn maanaam boo farul ak ñoom te yow fitna bu dee dal sa kaw du mujj fenn est-ce que nekkul ni tey jii dem jébbal sa bopp kaso bi muy ëpp sécurité ndaxte kaso bi kenn du ko fekk kenn du ko dóor ay fetal non non da nga doon waxil la li ma sa <laughs> am fu may waxee ah, maanaam bu demee ba nekk ci biir kaso bi mën a nekk karange ci nit parce que boo génnee sa bakkan mu ngi ci xottu gerte pour man situation bi ñu dund mm. nguur gi moo ci war a njëkk a gën a am kersa fi Sénégal toll tey ñoom war nañu toog xoolaat ne nag Sénégal bu mel ne joxuñu ko woon pour être honnête parce que nag bi leen jox Sénégal demawul nii te dañ ko doonu ci Abdou Diouf doonu ko ci Laye Wade tey ji mu tegu si seen loxo. Mm-hmm. man côté boobu laay waxee pour man Sénégal war woon toll ci niveau bi ba nit ki bu dee wax di tiit nit ki bu dee dox di tiit yooyu dellu ginnaaw la bu baax ci wàllu démocratie léegi nag bu nu nag bu dee am xam nga lan lan la jural tey sànq dama la jox exemple Kër Massar ñee waxuma ñoo def wala defuñu man nekkuma fii police du ma enquêteur mais jamono ji ñuy wax loolu ca Kër masaar oto yi nekkoon ca maire Kër Massar am na ñu ñuy jiiñ na ñoo nekkoon ci maire ba ñoo ci teg loxo yoon mi ngi ci pour man ñan ñi sàcc alul Kër Massar ñoo gën a yeeyoo dem ci gendarmerie ak kaso mm-hmm. te loolu actualité ca Kër mm-hmm. du ma ci sori nax am na lu ma ci xam pour mm-hmm. pourtant loolu lañ waroon gën a lijjanti loolu nag bu amee mooy ku far ci nguur gi loo def dagan na ku far feneen loo def rek yoon mën na la ci fekk. Mm-hmm. bu yàggee fajal sa bopp ca lu jëm te loolu gënul ci réew. sànq maa ngi gis benn information ci jigéen soor ci siège u APR. yaa ngi gis feneen ak feneen maanaam tey ji bu ñu demee ba. Mm-hmm. takk der yi dañoo gëm ni. Mm-hmm. ñoom tëddewuñu njaaxaanaay bu nee ba justice tëggul njaaxaanaay dañuy dem ci justice populaire justice populaire mooy lan fajal sa bopp te loolu ji nga bu demee ba am ci réew. kenn muccatul te foofu nag la nguur gi war a taxaw mbir yi ni muy doxee nii bu dee tey jii kaso bu demee ba nit ñi jàpp ni kaso di ko banaliser da ngay gis booy booy yi day dem kaso duñ tiit dañ daan gis bu la daan woo sa mbokk yëpp tiit léegi da ngay da ngay jàpp ni yow gëree nga jàmbaar nga wala loolu mais lan mënu yóbbu ci niveau boobu en 2000 bu musoon wax ni nit diw woo nañ ko dikk dëkk bi information lay doon bi ñuy woo Idrissa Seck mm. léegi dañuy woon nit dikk mu mel ni kuy naani café ci corniche bi wallaahi ça veut dire que nag nguur président Macky Sall nan am kersa nag. Mm-hmm. ñu yóbbu réew mm-hmm. te ko. Mm-hmm. te jaloore borom da koy nettali. waaye du bis du ñëw ko nettali seen bopp. te jaloore boo ko mënul nettali rek mooy gàcce moo la ciy fekk. Sénégal fu mu egg rafetul ñaawul jekkul ci kenn. ak lu mën a def kaso du solution. dañ fexe na lañuy jàmmoo réew mi toogee ko waxtaanee ko. waaye fi ñu yóbbu nii man de dama ci am kersa man <laughs> pour être honnête. c'est Euh, euh, euh, noppi bu bari noppi. Mm. di seetaan. Mm. di seetaan lu ne. Mm. day indi lu ne. Mm-hmm. gis tey buñ demee ba Ziguinchor fi nga xam ne moom moo di siège su APR ñu dem ba taal ko te njiitu réew bi moom moo moo sanc foofu wala ay ñi nga xam ne moo di ay partisans ñu nekk foofu ñu dem ñu taal foofu kon donc xale yi ragalatuñu ragalatuñu sax dee dangay xool ci modi bu amee ni ngay gisee ñuy dawee di dem ci policiers yi. te loolu bu musaana am nit da nga nit danga daan ragal am kersa mais kersa amatul kersa amatul dara amatul ñoom ñoo yey kenn ko boo waxee ñu yóbbu la ci yoon te dama man de dama dama daan gis nit bu nee police police rek police ngi ñëw rek nga laal de mais léegi xoole imaginer bu ne police ngi ñëw da ngay taxaw bu dee mag magum jëm wala xale ni ngay jël li nga xam ne moom moo di ay xeer wala nga jël dara di ko sànni doomu aadama yi kon donc nan xoolaat seen bopp. Mm-hmm. dëkk bi metti na metti goo xam ne bu dara amee sax da ngay tiit pour ragal da tiit sax pour génn. bu dara amee yaa ngi xalaat yaa même boo farul la nit ki sax bu buñ ko defee dara yow sax xol day naqari dangay jooy wala nga am loo xam ne da ngay mel ni ko bokk moom mm-hmm. am na loo xam ne mën naa ñàkk te gis nga bu nee réew Sénégal danaan réewu teraanga la mm-hmm. donc nit koo xam da nga ko jox li nga xam ne moo di ay micro sax dafa tuuti jox la micro ni la waxal nga ne du ma wax ndax ku wax ñu jàpp la xoolal loolu aneen démocratie fu mu nekk mm-hmm. na ñëpp a jaaxle mage sérieusement ñëpp a jaaxle ñëpp tiit ñëpp a jaaxle ñëpp a tiit xoolal semaine kenn liggéeyul ndax lan boo génnee sax da nga ay man sama génnee lii ak lii ñiy raas déem am na ñoo xam ne dañuy raas déem. fan ngay situer responsabilité bi. Ah, kenn man daal man daal état xamul kenn xamul daal man daal tiit damaa ragal de da ngay laaj wala. damay laaj kenn. Ah. yaa mais am nga gis-gis que que ni responsable yi fan. mange da ngay laaj wala. da nga laaj d'accord baal ma amul problème. <laughs> bu ko maa bi ma ngi ne am ñoo jox micro ñu bañ. waa accord man ma doog télé bii naan. waa d' bu ñu demee léegi. ajara saxalaat léegi yi foo ñu wax. Eh, il wax su ñu demee ba léegi koo koo tàllal koo tàllal micro wala ku war a wax waxul léegi nag lii dëgg nag kañ lay kañ lay. fay tamit eh, mage bu ma nekkee fii daal ni ah président Macky Sall la. buñ ma fekkee fii. ci mm. buntu Walfadjri. mais mënuñu leen cee seppi nag dara wóor ci. Ah, kenn ka ko wax léegi kenn ko wax léegi ñu jàpp la yóbbu la te man damaa ragal am naa fi sommation ak kii ah. eh, amoon naa fi sommation ak yaa xam ah. amoon naa fi sommation ak jàdd boo waxaatee amat sommation ak président Macky Sall damay dem ci si wax dëgg daal aayul sa <laughs> waaw xam nga euh, réew mi de man de damay wax ni euh, mbir mi fi mu toll nii hmm. fii la gën a garaawee ci ñi jiite réew mi. Mm-hmm. parce que lu tax ma wax ne fi la gën a garaaw ci ñi jiite réew mi parce que bu nit ñi di wax dinga mën a dégg xam. lu xew lan lañ nar ak lu xew. Mm-hmm. mais bu ñu waxatut nëbb la seeni wax kenn ñemetu la wax maar day taali lu ne mën naa xew. kon liñ doon wax naan ubbi marmet bi. cooloo li génn. te si Lamine daan ko. yàlla yàlla dool ay leeram loolu dafa baax mm-hmm. parce que am na koo xam ni am na lu ne ci xolam faw mu génn ko bu ko génnee rek dana féex mm-hmm. mais am na koo xam ne léegi nee na wax wóoratul damay mm-hmm. ragal nag ñu jóge ci wax nag yegg ci jëf te bu boobaa musiba la te bàyyi wax ji mooy li gën parce wax jooju c'est très important léegi parce que man bi nga defee lii euh, gars yi ne duñu wax nit ñi non seulement ne duñu kii non seulement ñu boole ci di nëbbatu bëgguñu nga caméra léegi boo yaa ngi defaat encore leneen ci manifestation yi ñi ngi bañ sax ñiy filmer mm-hmm. maanaam ngay filmer maanaam da ngay ma gis ay booy yu kagulewu nga gis ni am na yoo xam ne mu ngi commencé di xew. Mhm. yoo xamante ni bi parce que loolu doxal leen yi mooy indi nit ñi xalaatee neneen di doxalee neneen. Mhm. léegi yow yaa ngi tàggat say ndaw yaa ngi leen di tàggat ci beneen ñaw beneen façon. te yëgoo ni yaa ngi bal yaa ngi leen di forme ci lii maanaam da leen di jëlee ci lii yóbbu leen ci lii ñu dem ci lee. Mhm. parce que li ñuy def am na ñoo xam ne bii mënuñu ko bañ a def. kenn que soit dinañ ko def léegi ñooñu nag bu fekkente ni bi tey leen a jëlee ci lii ba jàkkaarloo nag man sama eh, ki nga xam ne moom laay xam li mu nar ak loolu moo gën mm-hmm. comprendre léegi nag li indi loolu yëpp nag mooy jàpp-jàpp yu bari mm-hmm. jàpp bi jàpp bi nit ñi dem ba xam ni ku génn di wax dañ lay jàpp léegi bu ñu nañ leen noppi gis naa ñoo xamante ne bi dañ ñoo xamante ne bi ci kii yi ñu ngi nekk ci TikTok yi di wax naan gars yi quitté leen groupe yi. Mhm. defaraat leen nii defaat naa comprendre nga maanaam ñi ngi ci waat ci yeneen xalaat te yooyu yëpp li ko indi mooy yii nga xam ne moom lañ gis rek. Mhm. donc il faut que euh, ñi nga xamante ne bi ñooy autorités yeeg yooyu delloo si waat seen xel. Mhm. daal di xoolaat doxalin bi ñuy doxal parce que man doxalin bii ñuy doxal man jàpp naa ni buñ ko continuer ci miir bi lañ jëm. dañu koy mbëkk miir. dañuy radicaliser nit ñi. yaa ngi dégg ñu ngi def ay waaw moom laa kagul yooyu laa lay wax. ñu ngi defar ñu ngi defar yeneen yooyu ñuy defar noonu. pour ma confirmer li ngay wax nii ma bu bu bugguma feeñ parce que gars yi li ñuy def. ñun tamit dañuy xool beneen stratégie avant ma koy dékk micro bi. loolu la xam nga xam nga loolu mooy li nga xamante ni mooy problème kon bu fekkante ni bi kii il faut que ñu delloosiwaat ki parce que. Euh, kii nu mu tuddati 2012. dem nañ fi ay élection nit ñi manifester nañ. Mhm. mais yii amutoon ni nga xamante ne bi noonu la ñuy wëree nit ñi di leen rëbb. nit ñi dañ daan wax seen xalaat di exprimer wu. ànd ñoo Ablaye Wade di ko joxe joxe seen xalaat. Mhm. mais terewut kenn demut jàppale nit ñi ragal lu ñu woon pour toll fii. di wax ñu kii la donc il faut ñu réfléchir. xoolaat parce que sinon di nga jël jeunesse bi yóbbu leen ci beneen étape boo xam ne musiba lay doon ci réew mi mm-hmm. donc réew mi dañu ko bokk te nag lépp loo xamante ni bii lu koy taal la kenn mm-hmm. bëggu ko waaye nag am na kii yoo xamante ne bii buy jib yenn décision yi bu fi kenn wax ubbi leen marmet bi cooloon li génn lu ko mooy musiba Abdou Karim nag waaw Cheikh Omar ak Abdou Karim li nga xamante ni bi moom lañ leen euh, Cheikh Omar defe naa ne moom dañ koo jëli mhm. kii ñu woolu ko Karim maa ngi ah, seetaan vidéo bi nga xamante ni mi wax ne woo nañ ma waaw di <laughs> wax ni xam naa ne dañ may téye donc maanaam ñoom même biñ koy bi ñuy wax li ñuy wax xam nañ ni lii mën na leen cee fekk parce que mhm. boo seetee Cheikh Omar expliqué na ne bu leen jombale seen bopp kaso yi c'est que bu ñu demee ba nit ñi ragalatuñu kaso faaleetuñ ko loolu dangay xam ne yaa ngi yaa ngi ci yoonu échec parce que kaso buñ ci mësaan a wax ne dañuy yóbbu nit pour régler problème mais léegi am na booy yu bari yoo xamante ne bi tey li ñu bëgg mooy ku leen jàpp sax bu ñu génnee mën a bokk ci héros yi c'est yaa ngi defaraat yeneen booy ci beneen ñi ngi gisee mbir yi neneen ak kaso nga xam léegi boo demee ba booy di gisee kaso nekk ku ci duggul parce que tey attention affaire toll na foo xam ne am na ñoo xam ne dañ naan ku ci duggul tàppet nga dañoo war a sax dugg am na ñoo xam ne dañuy am na koo xam ne day toog léegi wax pour ñu jàpp ko yóbbu ko léegi nag bu mbir mi tollee foofu am na ñu koy doxalee ma jigéen nit ki nit ñu ne ak fi ñu toll maanaam yépp loo gis ay tolluwaay la hmm. am na koo xamante ni kii tey moom wax ñu dugal ko ci kaso bi. ak yow yow ni nga koy jàppee ak moom ni koy ki koy jubal ci kaso bi daf ko jàppee ni moom mi ngi koy lool te peut-être sax mën na nekk ni moom mi ngi koy dimbali ci li mu bëgg. Mm-hmm. donc il faut que ñu delloosiwaat. xel yi xel yi. Mm-hmm. daal di xoolaat ban stratégie parce que sinon réew mi dina barastiku jaar foo xam ne si joxe te nga ne Alioune Tine ji nga lool bu dee am na. Mm-hmm. bind même même ñi koy def tax te nekk ci nguur gi. ñoom ëllëg bu fu nguur gi jo jugee mais ay CPI mën na leen topp ci torture parce que torture crime la boo xam ne ci àddina bi kenn àndu ci mm, mm, mm. maanaam nit ki sañ nga ko jàpp mais dafa am ay sañ-sañu lekk naan ak fu mu tëdd yooyu mais am na loo xam ne ci jàpp gi bu dee teg nga ko yow ëllëg loolu mën na wëlbatiku tey jii teg tegu sa kaw ah. te nag nekk passif mais du bàkkaar la fa xew mooy procès boobu ah, gis nga la fa xew ñan la ñuy àtt loolu la loolu tumbaari yàlla buñ fa àgg mais ba ah, moytu moom ak li ñu gis nii waaw man de wax dëgg yàlla day dama gën a bëgg sama góor ga. billaay Abdoulaye Wade xam nga mm. kii ma jigéen. Mm. Wade lu mu fi déggul Wade ëmb na wasin na rek la fi déggul. wallaay ku waxal yàlla rek nangul ko ko. Mm-hmm. démocrate def naa boo koy wut ba egsi ci Wade da ngay taxaw. Mm. c'est pas pour ma bëgg ko. Mm-hmm. mais mais dafa am loo xamante ni gis nga keroog maa ngi koy wax bi ñuy jàpp jël Sonko. man leen xam naa mag ñi koy ñi koy ñi koy conseiller. bu man bu ma bu ma amoon jotee ci moom dama naan ko Sonko convoqué nañ ko telle heure mhm. bu doon def le tour du Sénégal nañ ko bàyyi mu dem après mu ñëw wu si man boo sama gis-gis la mhm. parce que am na loo xamante ni fitna la te fitna mhm. baaxul et puis fitna bi li ma ci gën a naqari des innocents ay dégâts collatéraux man loolu moo ma naqari nit ñoo xamante ni dañoo ñaq seen alal ba sonn ñu lakk ko yii ñu dëbb ko yii ñu taal ko xam nga loolu man gis naa ci ndaw suy jooy gis ci ñeneen ak ñeneen ce qui veut dire que yëpp fitna bi moo ko indi fitna daal euh, wax dëgg yàlla buñ ko mënoon a éviter nguur gi muy opposition bi surtout nag nguur gi nga xamante ni mooy yor force de l'ordre yeeg yooyu nañu wàññi nañu nañu fexe nu ñu indiwaatee jàmm ci biir Sénégal mm-hmm. man man je crois que loolu mooy solution bi mm-hmm. voilà mm-hmm. gis nga Adja keroog da ngay xool même boo kiiwee nii man sama dem billaay wallaay wa taala dama am lu ma métti damaa jooy ndax Sonko wallaay Sonko dama ko Euh, dama am noo xam dama ne kii mujj gi dama ne kii ana waa këram. parce que nag tellement. nin ko malmené nin ko def ni mu méttee am na benn instant boo xam ne loxom bi mu dalee bu laay j'ai pleuré dama am noo dama dama am noo xam dama ko def mais nit ki da ngay am yërmande ci doomu aadama dafa metti am na loo xam bu ñu la ko yàggee di def gor bu ñu yàggee di ko dem di dem ba bës humiliation ko ci miir bi kii maris moom lu metti yaramu Sonko bokk moo bokk na parce que daf ko bës non daf ko nengeñ non daf ko metti koy ceinture yi non dafa dafa dafa dafa ko bëggoon jàppale loolu loo xam ne amul mandat dam parce que ku ne kenn mais ñëpp gis nga ana waa Pastef sax wàññeekuwaat dem dem këram bañ a bañ a dem ma ah, ne ko xam nga avantage bi mu am Sonko am amu ko moom moom moom député la mais Adja mi ngi ak bande xam nga Adja ana ñu mu àndal ana Sonko ñi ànd ak moom keroog Guy Marius Sagna rek ko moo ko moo ko jàppale keroog mais mennum Guy moo ko protégé d'accord léegi nag quant à Cheikh Cheikh Abdou ah. Karim mm-hmm. ah, Karim moom xam naa ne bett ko ndax di saa wax vidéo bi ma nit xool naa ko démb nee jàpp nañ Cheikh Omar Diagne joxoñ na ci baaraam sax ñeneen ñuy ànd ak Sonko mais bon mm-hmm. comme ci seen téye la ñuy wax foofu la ñuy yem mm-hmm. muy loo xamante ni aussi euh, ñoom dem nañ ba defe naa ni ragalatuñ ko ndax Karim buñ doon compter li mu li mu dugg kaso kenn xamatul ñaata la moom gën na feebar doon dugg kaso kon nii mu xawee am tan tuuti bu dugg xalaatu ko mm-hmm. parce que nee na carrément maa ngi wuy ci mais xam naa ne dañ may arrêté mhm. xaw ma lu tax ñu woo ma xam naa li ñu wax la mais maa ngi dem dañuy wuj ce diir veut que ni li saa wax la aussi benn côté mhm. dañu bu ñu demee ba fragiliser kaso mhm. ba sénégalais bi ragalatul kaso même xale yi c'est c'est dangereux pour un pays loolu aussi ah, loolu aussi doy na waar jàpp na leen ñoom ñëpp et après ah kaso yi leen jàpp léegi lan lañ ciy gagné <laughs> maanaam am yoo xam ne koy def ba pare euh. mais du ndam waa ñu ngi masaw waat Papa Ndiaye bu baax a baax ko ñaanal yàlla suñu boroom génne ko suñu xarit la suñu frère la jërëjëf ajaratu en tout cas mu ngi noonu ah, loolu nekkoon euh, li nga xamante ni moo di actualité du week bi metti na torop te compliqué nañu wax ne rek état bi nañu xoolaat bu baax a baax ñoom itam seen taxawaay di leen jox di dajee ba alxames incha allah